ñoo ngi sàkku ñu daal di ci ubbi li nga xam ne mooy ab enquête waaye na kàddu yi nga xam ne docteur Babacar Niang yëkkati na ko wax ne matériel médical bi dañu ko jaay privé bi du docteur Babacar Niang rek moo ko fi njëkk wax ndax François Ndiaye mi nga xam ne moo jiite comité suivi force Covid 19 waxoon na lu ni mel maanaam ay subventions yoo xam ne ay lal yu ne mes ne menteñ ba tey ci journal bi ne na ma jëmal jaan tamit yëkkati woon na ay laaj yoo xam ne ba léegi kenn tontu ci ndax ma jëmal jaan nee na ay centaine de lits yoo xam ne dafa jekk-jekk ne mes ne menteñ ana lal yooyee fon la dugg léegi nii ay tontu amu ca ma Madiambal Diagne waxoon na tamit li nga xam ne mooy respirateur artificiel yi fan la dugg ba tey ci journal bi di Le Quotidien docteur Babacar Niang moom nag nee na li nga xam ne wax na ko amul benn virgule boo xam ne dina ko si soppi la nga xam ne moom la waxoon démb tey la ko gën a wax matériel médical bi bëri na ci loo xam ne dañu koo jaay ñi nga xam ne ñooy clinique privée yi yéen kaay gi de la turbina xëy duñu xibaar naan ñu variant delta bi ba mu feeñee ci Sénégal ba léegi gis nañ ne li nga xam ne mooy dee yi dafa gën a yokk ndax lu toll ci benn semaine am na lu toll si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan morgue yi jamono ji dafa débordé yéen kaay gii di Les Échos nee na procureur Aliou Ndao mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon CREI yi waajuram wu jigéen dafa génn àdduna avant muy génn na nag wër na hôpitaux yi wër a wër a wër ba sonn yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu pass sanitaire bi nga xamante ne am na ay entreprise yoo xam ne bëggoon nañu koo def ci réew mi loole nag Samba Sy mi nga xam ne mooy bi ñu dénk wàllum travail dafa lànk ba tëdd sa naaj ndax nee na loolee yoon mayewu ko yéenekaay gi de la Tribune xëy dañu xibaar naan ñu Macky Sall jamono ji sonn na loola ak coronavirus beek maanaam corona deal bi nga xam ne jamono ji moom la ñuy jaaba jonge ci réew mi ak wàllum inondation yi yéenekaay gi du l'Observateur nee na Macky Sall jamono ji moom rek moom la ñu gis mu sóobu ci front bi ni nga xam ne moom la ñu yore coronavirus beek song yi nga xam ne moom la ko opposition bi di song te ñi nga xam ne nag ñooy ay alliés maanaam kenn du leen dégg ñu défendre ki nga xam ne mooy Macky yéenekaay gi di réew mi ko di matin ñu xëy fekk fa Assane Samb mu xëy jël xalimama nee na société sénégalaise bi jamono ji doy na waar génn xeetu doy waar goo xam ne nit ñi daal la nga xam ne moom la ñu bëgg a def lu ne di leen ko jaral ngir nag ñu daal di koy atteindre nee na xoolal lobe njaay mi nga xam ne da doon liggéeye bëgg alal tax mu dem ci ab maam mën a ba kanam daal de say rota étudiant bi nga xam ne solo na col koog jigéen ngir naka defal examen ki nga xam ne mooy ab copinama ana lan moo ko fi jar Assane Samb nee na fii ca Sénégal bëri na fa ay hauts responsable yoo xamante ni ay faux CV lañu ñu yore ba tey ci journal bi moom Assane Sambo nee na dina jafe lool ci Sénégal ngir nga am confiance ci ndax nag nit ñi maanaam fonkatuñu seen kàddu te li nga xam ne mooy fen ak kàcce maanaam dañ koy fowee yéen kaay gii di Le Quotidien nee na taw yi nga xam ne jot na ko taw ci Sénégal ca Matam am na ñaar ñoo xam ne ñàkk nañu fa seen bakkan yéen kaay gii di Dakar Times xëy ci révélation yi nga xam ne Bougane Gueye Dany defoon na ko ndax moom Bougane nee na bu jege lool ki xam ne mooy Macky Sall dafa am nag benn marché lu toll ci cent quatre-vingt-dix milliards gré à gré la yéene kaay gi nee na homme d'affaires boobe nag du kenn ku dul Pape mi nga xam ne moo jiite Mina distribution Dakar Times nee na homme d'affaires bii bëri na nag ay njuuj njaaj yoo xamante ni ñoo ngi ko koy tuumala yéene kaay gi di esat ñu xëy fekk fa Madi Touré nee na nag li nga xam ne mooy élection yi bu ñu ko jaarale si yoon dinaa gagné Augustin Senghor gagné bu leer nañ ñi yéene kaay gi di sunu lamb nee na ñi nga xam ne ñooy waa CNG ñoom nag wax nañu lu leer nañ ñi nee nañu nag ngir lamb ji commencé dina am ay conditions yoo xam ne moom la ñuy remplir arène nationale lu toll